daal la ñuy teg ci kanam kii mooy jaaji dem ba ma deeree ngaay nii nga mën a mel man sa bàyyi toj naa tànni béer bu ne sabar bu ne toj naa ko wallaay toj naa grand théâtre dama dama siifal siif siif baara mbay baara mbay mbay dama thank you mbay jaaji dem ba ma deeree ngaay nii nga mën a mel sa baay bu ne jël na ko ci fecc waaw waaw di ko jël ci jàng di ko jël ci lu ne mbay mbasu laay lay la laa sama doom jaga ñene médaille yi fecc waay baara bay doomu géwal xandoor bu waay bu deewee ci bu dammee ci war wàcc na cëm waa dama foo jëm fii ngeen war ñëw ak ëppal mbay mbasu ñëwal nii waaw waaw laay lay la laa sama doom ja kontaan na sigil nga askanu ngéwal ay sa maam ja bu dekki woon ñu ne ko dama mbayee jël médaille fecc ci biir américain yi du ko weddi dama mbay sigil nga ngéwal ay la laa mbay jaa gi dem nga ngéwal sama doom ja sigil nga ngéwal la ma daj ci yow yëpp fa taxa fa kàlla macha allah xam nga ni lii yal na la yàlla defal jàmm macha allah man sa baay toj naa fuurari félicitation nii nga mën a mel doomu géwal fecc nga ba ñu jox la raaya ah daba baaxee boo askanu géwal gi nga bokk daba fa tabar fa kàlla macha allah lii maa ko liggéey ci sa kër nday daba lii maa liggéey ci sa sa kër nday waneel médaille bi gars yi dañoo mën a weddi daba mbay dañ koo jox médaille ci fecc ay cat dafa gaaw téyel bay jaaji dem ba ma ceree si sigil nga askanu géwal daba mbay nii nga mën a mel xam nga ni lii man sa baay maa ko liggéey ci sa kër nday xam nga ni dama koo liggéey sa kër ndey ba ñu jox la médaille fecc askanu ngéwal tey sa maam ja bu bu dekki woon ñu ne ko dama mbay jël raaye bi ci kaw américain yi da day kontaan day bëgg macha allah daba sama doom ji fatabar fa kàlla macha allah laaw la cat laaw la cat ci ba mu dalagul laaw la cat ku yàgg ci teen baag fekk la cat xam nga ni dama koo liggéey sa kër ndey de dama ko faa sëy ba lii fekk la fi daba macha allah jël concours lëmbal la wala lan la jël concours wala lan la jël concours lëmbal la